c'est bon ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di sant journaliste yi ñoo teew fii di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm journaliste si teew fii yëpp man maay Ibrahima Thiam di président des gérants de Total de l'association des gérants de Total Sénégal ñu ngi leen di gërëm ngeen sant seen présence ak teewaay bu rafet bi di wax rek ne ñun Total dañu. dañuy aajo lu nga xam ne dafa am importance ci ñun mooy HSE bu ñuy commencé dara il faut que ñu kalaat sécurité fii parce que station lañ nekk bu ñaan ya gaay yëpp bu kenn tux cigarette parce que nous sommes dans ay produit inflammables moo fi nekk ñu war a am cigarette bu ñu tux ñu nga xam ne dañuy am nga xam ne war a gaañ ñu xaw ko kii même euh, pompe yi sax ñu arrêté ñu arrêté momentanément vente yi loolu moo taxoon loo amoon laa amoon damay wax ma jox Ibrahima Fall bi nga xam ne moom moo nekk suñu secrétaire général des gérants de Total de Total Sénégal Sénégal mu jël parole ñu wax ko. Total toujours. plus fort Total toujours. plus fort Total toujours. plus fort. merci beaucoup. rahmatullah. maaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, ñun gérant station Total Sénégal yi ñun ñoo organisé woon conférence de presse bi waaye laata ñu ciy sumb. maanaam dañoo bëggoon def ñaan ku ci nekk ci la nga xamante ne moom nga gëm moom nga yaakaar mm-hmm. na ñëpp àndandoo nu def ñaan ci lii yàlla defañu ñu ci tawféex jàmm juddu ci jàmm mujj ci ci barke bisimillahi rahmaani rahim jàmm amiin yàlla nañu yàlla defal sutura amiin yaa rabbi amiin bismillaahi rahmaani rahiim jërë ngeen ngeen jëf ñu ngi leen di sant nag mboolem organe de presse yi nga xamante ne teew nañu ci conférence de presse bi parce que woote ñu wuy si la nekk na lu nga xamante ne yombut waaye nag ndokk yàlla bi ngeen xamee importance su li tax ñu woo leen ci barab bi pour discuter ak yéen ci maanaam jafe-jafe yi ak lii nga xamante ne dal nañu ci fan yi nga xamante ne génn nañ ko ñii fi nekk ñëpp nag waa Total lañu nekk bu weesoo ñi nga xamante ne ay association aar sa gox la ñu nekk ak ay association yoo xamante ne ñu ngi ci biir quartier bi unité 17 unité 19 22 mboolem Parcelles Assainies ñëpp ñu nga xamante ne ñu ngi ci association yoo xamante ne dañuy aar gox ñu ngi toog ci suñu gannaaw ñu buggoon nag waxtaan ak sénégalais yi une fois encore ci ñaari fànn bi ci jiitu mooy fànn sécurité parce que ku xam station xam ne barab bu nga xamante ne la fa nekk lu mën a tàkk la te ña fay liggéey dañu nekk ay employés yu nga xamante ne dañ leen tàggat ci saytu loola ba bu ëllëgee bu tàkk-tàkk amee ñu mën a jànkoonteeg loolu ñu buggoon nag une fois encore ñu lancer message ci mbooleem ñu nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan xam naa ne nag wax dëgg yàlla yàlla dëgg moo neex yàlla bari na ci population bi ñu nga xamante ne message yi ñu jotoon lancé comprendre nañ ko waaye am na ci ñu xaw a des ñu nga xamante ne ba léegi daa mel ne dégguñu li ñuy wax station une fois encore la fa ne tàkk la te am nañu nag ngërëm ak cant gu nga xamante ne war nañ koo beral Total Sénégal parce que nag installation yi nga xamante ne def nañ ko ci biir station yi mu nekk installation xam te ne dafa dëppook jamono moo tax boobaak léegi nit ñi di dugg ci station yi di taal te tàkkul waaye nag ku ne xam na ne défaillance mën naa jóge fu ne ñuy ñaan nit ñi ñu arrêté station yi ñuy dugg di taal ak di saccagé parce que nag umpale wu leen ne deux mille vingt et lu ni mel daloon nañu en mars nit ñi dugg ci barab yi sàcc toj jël lu nga xamante ne moomuñu ko ci lu nga xamante ne jàppoon nañ ne maanaam ci bañ a ñàkk tayeef la. parce que nag dañu wax ne sénégalais yi amaana comprendre ñu woon ñu initier campagne de communication bu nga xamante ne dañ koy teg pour que sénégalais yëpp comprendre ne lii nekk ci station yi ay doomi Sénégal ñoo ko moom. dama ne aucune station laa du Total du Vivo du Ola du Elton du Clean Oil du Ciel du benn station ci Sénégal bu mérité d'être attaque parce que ay sénégalais ñoo fa moom ay sénégalais ñoo fay liggéey. et que il faut que nit ñi comprendre loolu ñii ngeen gis ci suñu ginnaaw ñu ngeen gis suñu ginnaaw ñii dañoo dem leb banque dugal ci station yi ñii jaay seen alal wala seen alali wayjur dugal ci station yi ñii compagnie yi jàppale leen ñu nekk ci biir station yooyu di jël ay sénégalais on est pourvoyeur d'emploi mm-hmm. il va falloir que nit ñi comprendre ne on est pourvoyeur d'emploi et que ñu arrêté di dugg ci suñu station yi dañu arrêté dugg ci suñu station yi directeur général bu totaal ku ko xam-xam ne sénégalais la Badara Mbacke Mbacke la sant fii gis ngeen fi ku weex ay nit yu ñuul képp fi ne ay nit ñu ñuul képp fi ne une fois encore station yi li ci nekk ñoo ko moom suñu alal la taxawal nañu nag ay kuréel kuréel yi nga xamante ne aar suñu moomeel la fekk kuréel yi nga xamante ne moom la waa Parcelles Assainies samp ci gox bi mbooleem ku dugg ci suñu station yi danañ la identifier danañ la booleeg yoon te danañ la topp nga fay ñu. parce que nag dootuñu ko nangu. ñi jot a dugg ci station yi ba nga xam te ne jël nañ fi caméra yi identifier na dem nañ ci yoon danañ leen jël kenn par kenn danañ leen yóbbu ci yoon ñu fay ñu nga xamante ne jot nañ ko yàq ak jot nañ ko jël dafa doy. arrêtez de saccager nos stations. dootuñu ko nangu. parce que nag suñu alal lañ fi defan ah. on va se protéger maintenant nag li ma wax ci état bi ko jëmale. état wu Sénégal l' état doit nous protéger par alpha ou par bêta parce que nag vous êtes garant des biens et des personnes alal ji fi ne alalu ay sénégalais la on exhorte l' état à nous protéger à protéger nos biens du ñu nangooti nit ñi di yàq suñu alal ku ko yàq danañ la topp parce que mars deux mille vingt et ñàkkoon nañu un milliard cent deux millions un milliard cent deux millions lañ ñàkk toutes toutes toutes toutes toutes les stations pourtant ba tey jii ñuy wax yow dërëm France dolli wuñu dara am na loo xamante ne nag dafa war a jeex dafa war a jeex une fois encore arrêtez de rentrer dans les stations di fa toj bu tàkkee wallahi azim bu tàkkee musiba naaru laay mm-hmm. musiba naaru laay bu rëy di ngeen ko dégg Sénégal lu raw nag li liñ fi jot a dégg ci ay musiba bëgguñu nag loolu am parce que wax dëgg yàlla installation yi nga xam te ne jot nañ ko am ci suñu station yi ba tey jii ñuy wax ak yow ces installations nous ont permis ñu mucc ci lii nga xamante ne ay tàkk-tàkk la ak ay musiba naaru laay waaye nag ku xam station xam ne défaillance mën naa am te bu défaillance amee musiba naaru laay la lillaahi war a sóoli ñu ngi leen di ñaan arrêtez de casser nos stations toute station confondue na toute marque confondue aucune station ne doit être cassée Total toujours Total de casser nos sites nu yéen ñëpp te di leen jaar di leen sant aussi ci déplacement bi ngeen xam ne da ngeen koo def euh, yéen waa yéen journalistes yi ak ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci média pour ñëw couvrir suñu conférence de presse bi rafetlu naa ko lool lool lool lool lool lool mais pour rejoindre Ibrahima ci li nga xam ne moom la développé muy euh, station yi nga xam ne euh, les installations ak les le personnel surtout bi nga xam ne dañ leen a formé saytu leen xool leen ba lépp loo xam ne aju na ci problème mu sécurité luy mën a xew ci station bi dans un premier temps danañ ko maîtriser. ndu était cette formation la sur le personnel et sur les agents yu nga xam ne ñooy euh, yëngatu ci biir station yi kon yaakaar naa benn station ba njëkk euh, laal en deux mille vingt et duñ ca teg beneen fa réew mi yëpp di jaaree di tàkk mais heureusement bi nga xamee ne on a nos personnels on a du matériel boo xam ne si c'est adéquat mais Ibrahima l'a bien di euh, défaillance mën naa jógee koo fu nekk lu gën te wóor te loo xam ne mooy sutura doon kaaraange ñëpp mooy nañ leen bàyyi xel ne station yi nga xam ne moom ñoom nit dañ koo def ab cible pour bu événement amee ñu jaar fa pour s'enrichir il se trompe dañuy nax seen bopp de dañuy nax seen bopp station yi doonul foo xam ne nii nit ci dafee war a jaar di séentu wala muy xaar ab événement am wala am lu xew pour nga ne naa fa jaar yóbbaale sama kër ab saako ceeb wala naa fa yóbbaale meew wala naa fa yóbbaale suukar wala nangam nangam erreur la mën ngaa jóg animé par cet esprit te doo dolliwaat sa kër c'est sûr nañ leen bàyyi war xel ne station yi ñun ñi nga xam ne ñoo ci liggéey ñu ngi def suñ kéemtalaayu tan pour aar dans un premier temps gox bi nga xam ne ci la ñuy nekk parce que euh, Ibrahima wax na ko nee na service de proximité la tey imaginer leen station bi tey bu fekkoonte ne nekk fi woon mara détail yi am koo xam ne yaramam dafa sutaatee ñu war ko évacuer amul essence wala amul gasoil fan la population bi jëm nañ leen bàyyi xel loolu ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi nañu wax ak seen njaboot ñi man danaa yokkaat encore Ibrahima ci ñi nga xam ne aussi ñoo yore lu nga xam ne mooy mbiram jàngale mi nañ koy dugalaale encore ci biir jàngale mi di ci xale yi pour danger bi nga xam ne moom la ñuy daw buñ jógee ne dañuy dem ci station bu ñuy piller wala nangam nangam ñu wax leen ne leen bu leen ta am na ay événement yoo xam ne yii ku kenn ku ci nekk mu ngi koy fàttaliku au port bu problème yu amee port ñi nga xam ne ñoo jógoon daw di seetaan yi ñoom ñoo njëkk a dee ñi nga xam ne ñoom lañ fa la leen fekkoon c'est la même chose pour les stations station ñun ñëpp ñu ci taxaw fi ñu toll ci ab bombe lañ taxaw bomb bi fu nekk wan nañ ne leen bañ nañ sax koo xam ne kenn fi téléphoné encore mooy muy tux wala muy jéem a kaas boo demee na da ngay kaase par exemple yor sa baartu di ko dóor ci du fer mais yaa ngi créé fa étincelle bi nga xam ne mooy jógee koo ci euh, dóor ñaari frottement wu métal boobu mën na indi musiba mbaa ba kubba puisque essence bi nekk si biir suuf si am na foo xam ne fii fa lay nokkee fa muy nokkee la fay jógee koo loola mooy tàkk leneen tàkkul lu du loolu te bu jógee koo ci biir fa muy nokkee di wër dafay dem rek o gré du vent foo xam ne lii fa la li jëme rek fa la jëm bu fekkente ne musiba mbàbba kumba fekkente ne ab étincelle taslanteeg moom muy kuy fekk muy dajji ab bunt di dóor ak ak martu bu ne tay jooñ mu koy def bu ko tegee explosion lay doon te explosion station ñu ngi ñaan yàlla mu musal ñu ci kenn bañ koo fekkee kenn bañ koo dégg lu may gën a ñaan daal mooy que nit ñi ku si delluwaat ci fi nga xam ne fa la jógee ko bu fekkonte ne ña fa nekk xamuñ woon nañ xam ne station yi ñuy foyee ak di ko caaxaane ay danger lañ doonu na nit ñi dañ ko leen fee war a ubbil loo xam ne dañ ci wute ab xaalis wala ñu fi amee lu ñu yóbbu seen kër yi loolu taxul dañ fay ubbi station yi pour nit ñi di ci wut seen wërsëg di ko partager ak seen i njaboot tey ñuy liggéey so station bi yëpp amul kenn koo xam ne kii da nga cee yor del bu weex ñu néew la ci ñun ñëpp Sénégal gi lañ juddoo fi lañ yaroo fi la ñuy teddee ñoog suñu njaboot ñu fi liggéeyee aussi seen njaboot ak ñëpp fi la ñuy teddee nañ leen bàyyi wax xel ne ne station yi doonul ay station yoo xam ne ñi nit ñi dañ koy dajale pour ñëw di wut si xaalis dañ koy dajaloo pour ñëw di fi liggéey si kenn ku si nekk la nga fay fore nga dem bokk ak sa njaboot boo xam naa foofu laay yemat kum ba si kanam jërëjëf jëf waaw Sénégalais mm. mm-hmm. mm-hmm. bon bon message boobu may may jàllale voilà mais message bi may wax foofu pour tontu la rek mooy que ne euh, total total énergie comme nu mu tudd léegi dafa doon total énergie dafa doon total total tout court léegi nag dañ cee yokkaat encore énergie ak S énergie mooy lépp loo xam ne dafa mbàcc ci mbirab euh, euh, énergie muy lu nu ma koy waxee ci olof encore Ibrahima mu doon pétrole mu doon gaz mu doon euh, euh, comment dirais-je électricité lépp loo xam ne li dafa màcc ci énergie moom lañ ci yokk ci total bi nga xam moom moo fi ma doon nekk pour wa leen ne leen yematut rek ci total bi nag dañ cee yokk leneen yoo xam ne lii lépp ci dérivé pétrole ci lay jógee ko lu ci ëpp loolu moo tax ñu indi ko ci bon je crois que ne loolu doy na pour que tey ñuy liggéey so station bi yëpp amul kenn koo xam ne kii da nga cee yor del bu weex ñu néew la ci ñun ñëpp Sénégal gi lañ juddoo fi lañ yaroo fi la ñuy teddee ñoog suñu njaboot ñu fi liggéey aussi seen ak njaboot ak ñëpp fi la ñuy teddee nañ leen bàyyi wax xel ne station yi doonul ay station yoo xam ne ñu dañ koy dajale pour ñëw di wut si xaalis dañ koy dajaloo pour ñëw di fi liggéey si kenn ku si nekk la nga fay fore nga dem bokk ak sa njaboot boo xam naa foofu laay yemat kum ba si kanam jërëjëf jëf waaw Mhm. bon bon message boobu may may jàllale. voilà ma ne message bi may wax foofu pour tontu la rek mooy que ne euh, total total énergie comme nu mu tudd léegi dafa doon total énergie dafa doon doon total total tout court léegi nag dañ cee yokkaat encore énergie ak S énergie mooy lépp loo xam ne dafa mbàcc ci mbiram. Euh, euh, euh, énergie muy lu nu ma koy waxee ci olof encore Ibrahima. mu doon pétrole. mu doon gaz. mu doon comment dirais-je. électricité lépp loo xam ne li dafa màcc ci énergie moom lañ ci yokk ci total bi nga xam moom moo fi doon nekk pour wa leen ne leen yematut rek ci total bi nag dañ cee yokk leneen yoo xam ne lii lépp ci dérivé pétrole ci lay joge ko lu ci ëpp. loolu moo tax ñu indi ko ci bon je crois que ne loolu doy na pour que. nit ñi war a xam ne tot tur bi nga xam ne moom la ñuy jàpp kole ko rek ne dafa doon euh, euh, société tubaab yaakaar naa ne c'est une aberration euh, Total c'est vrai tubaab moo ko moom mais boo xoolee ci Sénégal gii ñu nekk fii yaakaar naa bu ñu doon wàññi lu fi nekk ci ay tubaab du man ñaar wala ñett ñu def ñëpp Sénégal à commencer par le directeur général boo xam ne bii il est Mbàkke Mbàkke pour commencer Sénégal la dëkk fi la yaroo léppam fi la sax maanaam maanaam maanaam pour pour dëggal lii alaaji baaba doon wax nii léegi léegi pour dëggal ko ñii ci ginnaaw ñëpp ko ci laaj ku ne dala naan contrat la am ak société daa signé contrat locataire la ñii ngay gis ñi yëpp ay locataire lañ station yi nga xam te ne ci lañu ne ay locataire lañ ci donc sénégalais yi war nañu mun a comprendre loolu am na ci lu nga xamante nag maanaam bëggoon naa ko dolli ci ci ci ci ci ci wax ji mooy maanaam lancer un appel oo leader politique de l'opposition comme du pouvoir. Parce que kii ne dit rien n'a consent. kii ne dit rien consent. Leader politique, nous avons askan bi pour deux raisons. Bi ci jitu moy limi